asalaamaaleykum sëriñ bi ni ngi lay nuyu nuyu bu sell nuyu bu kawe nuyu boo xam ni mi ngi jóge ci xol waaye gëm nañ ni tàbbi na ci biir beneen xol di bu baax sunu xarit sunu doomu ndey sunu sëriñ sunu sëriñ ñu jëkke sëriñ bi sunu xarit sunu doomu ndey seen Cheikh Baara Laxaat léegi la ñu am xéewalu bi noo dugg ci ci résidence bi rekk sëñ bi woolu nu ñu dem jëkk ziyaar ka di soog a ñëw di ziyaar boo xam ni am nañ ci mbégte lool man de xawma kan moo war sant Serigne Touba defe naa ni àddina bi yépp a ko war sant waaye nag man mii maa si war gën sant Serigne Touba fu ma toll rekk sëriñ bi si boppam wan ma boppam wan ma ko ci ay firnde yu wóor yoo xam ne àddina bi dañ koy gis bërki démb rekk ci gannaaw élection yi yàlla defal ma xéewal gu rëy goo xam ni ñu bëri ñu ma doon xalaat di seet ma dikke nan la dunde li yàlla dogal ma ñëw fii mal ne dama yenn woon àddina bi yépp ba ma gisee sëñ Muntaxa mu woyof toll mu wax ma wax joo xam ni ba tey mi ngi sama xol bi yàlla xam na ni sëriñ bi wax ji ma wax su ma koy fàttali yenn saay sama bët yi day taadax ndax damay am mbégte xam ni aw ma fayu sëñ Touba aw ma fayu sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa wax naa ko ni ko man daal li ma la jàppe te tubaa Touba ci boppam wa nekk mooy xéewal boo xam ne yàlla daf la wàcc ci àddina bi rawatina Sénégal nga defar jikko yi defar xol yi jël yoon wi gën ko téye moom xéewalu yàlla la feeñ na ci masalik gi masalik képp ku gëm sëñ Touba képp ku sopp sëñ Touba dëgg na ci mazaalik gi xam na ni sëñ am na ndam léegi de werante amatul wax dëgg yàlla ñëpp xam àddina bi yëpp xam na ni sëñ yàlla fay na ko ba mu ko fayee jumaa jooju xam ni ba fi nu toll ñëpp ngi fay dem di ko yéem te Mbàkke loolu muy sa liggéey ndax danga nga am chance liggéey bi ba mu tàmbalee ba tey yow la si sëñ si sëñ saaliwu la jëkke te boobu ma xam sa diggante lool ak sëñ saaliwu plan yi nu jëkk indi sëñ saaliwu moom si boppam moo doon wax redaat leen nii defal leen que nii waaye ba mu ñëwee si loxo sëñ baara la tàbbi sa loxo rawatina nag liggéey bi nu liggéey yëpp ci jamono jàmbaar jooju nga xam ni yàlla nanu ko yàlla fayal sëñ Cheikh Sidi Maxtaar liggéey bu rafet liggéey bu rëy la liggéey ci jumaa ji kon ñun yoonu murit am na nu sas am na nu sas lu tax ñu am sas mooy wane na nu àddina bi yëpp am na nu koo xam ni kenn amu ko kon war na nu góor góorlu fu nu toll di wane ni ñun mérité nañu am sëriñ tubaa mérité nañu wax ni ay taalibe sëñ tubaa lañu man de loolu rek lay dund loolu laa bëgg te yàlla na ma ko sëñ tubaa defal mbàkke sama cëru taalibe laay jëkk waxe ni sa taxawaay si yoon wi rafet na ni nga ko téye ak xam-xam bu sell ba kenn werenteetul ni yoonu murit amul jaayir kenn werenteetu ko foo waxe rek teg nga ko foo xam ni boroom xam-xam yi danoo ñëw si man di ma wax seen cofeel si yow ak ni la yàlla mayee dégg dégg gi mooy man wax la sëriñ bi wax man wax li borom bi bint ba pare dugal ko ci biir xolu nit ñi loola la yàlla defal man ko wax man ko dugal ci xolu nit ñi looloo tax kuy tiijaan kuy murit ku bokk feneen ñépp nga saf leen waxoon naa ko ci bésu sëñ Alaaji Baara sunu jàmbaar jooju moo wax moo wax ni sëñ Alaaji Baara dundam yëpp kéemaan la waaye nag am na kéemaan boo xam ni kenn du ko werante te mu wane ko mooy yow kéemaanu sëñ Alaaji Baara di kéemaanu sëñ Touba ba mu lay tànn booba xam na lu tax moo def sëñ Touba du juum waaw bés bi nekk yoon yu dund loo xam ni damay sant sama biir xol sëñ alaaji tànn gam la tànn sëñ Cheikh si Maxtaar dëkk ñëw dëggal ko sëñ Muntaxa nag ni ne dama leen bëgg raw sax si sëñ Bas ndax sëñ Bas sama sëriñ Bas la kon suñu cëru taalibe Mbàkke ñu ngi lay bëgge bu baax a baax li ma lay ñaanal rekk mooy képp koo xam ne doon wax ni si askanu Mbàkke moo sut fan yàlla nga ko sut fan li ma lay ñaanal taalibe sañ na ñaanal sëriñam balam koy wax ñaanal ma mooy nga yàgg fi loolu te wér te lenn la ñor mooy am ngërëmal sëñ tubaa kon yàlla boo teqalikoo mukk ngërëmal sëñ tubaa man ñépp xam sama diggante ak yow ñépp xam ni aw ma sago si yow eh, bañ naa sax ba képp ku lay tagg day fexe ba dégg ko sama nopp ndax dafay xam ni dama see bég dama see bég si sama cëru taalibe waaye dama see bég si féete gu ma féeteeg yow te sëñ tubaa kese lal ka sëñ tubaa kese moo ko lal waaw kese moo ko lal kon mbàkke cëru taalibe yooyu rek la ñu ñëwee du ziyaaru homme déedéet man wax naa ko bërk démb bi ma demee euh, Grand Bassam nee naa leen man sëñ Touba daf ma gën a lépp waxoon naa ko sëñ Cheikh Sidi Makhtar waxaat naa ko sëñ Muntaxa nee naa leen su su ngeen ma waxoon bu dem bul demati Ndakaaru waxuma def politik waaye lu ma mënul fekk Touba soxlawuma la kon man sëñ Touba moom ma gënal sama lépp te nag Mbàkke su ma seetee suma dund def ko film seet fi ma yàlla jaarale yépp seet fi ma agsi li ma mucc ci pexe li ma mucc ci lii li ma mucc ci lii damay xool ba yàgg saa xam ni man doonuma ci dara kenn la sëñ Tuubaa la amul jëmm ju ma amul lu ma def walla lu ma am bëgg ci yéem sama jëmm ji kenn laa see yéem sante kaka mooy sëñ Tuubaa kon ñu ngi dellu sant sëñ Tuubaa du la téye lu yàgg sama diggante yow ñépp xam nan ka ñi ngi dellu di la ñaanal nga yàgg fi loolu te dellu di la ñaanal ngërëmal sëñ Tuubaa di yokk ci yow foo toll am nga ko waaye mu yokk ci yow foo toll ñun nag ñu ngi lay tàllal su loxo si tur ñi ma àndal yépp bañ naa ba dama tànn euh, dama tànn mënoon naa présenté ñi ma àndal rekk waaye nag booba sax dafay xaw jege lu jëm tuuti politik ay mbokku taalibe rekk la àndal ñëw ñu ànd ñëw ziar sunu ziaru taalibe kon ñoom ñëpp maa ngi leen di jottali seen ziar di la jottali sunu ñaan sunu bëgg-bëgg yëpp te sëñ Muntaxa bés bi nekk jël di nu si ñaax mooy liggéeyal sëñ Touba. di daw di wut ngërëmal sëñ Tuubaa Mbàkke ñaanal nu gannaaw gudd fan ak wér sunu boroom defal na loolu wax dëgg yàlla sant nañu lool bi nu yàlla dafay taalibe sant nañu lool doonee taalibe sëñ Tuubaa ku dund masaalik gi rek di murit gën nga am feex te wu ni man taalibe sëñ Tuubaa laa man de dama ko daan defe di tëgg dënn tey laa gën rawati tëgg dënn xam ni ànd ak sëñ Tuubaa rek a wóor jërëjëf sëñ Tuubaa ci ñi fi nekkal Sëriñ Tuubaa njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp cër boobu nga am ci ñoom sama diggee yow nag di nga ko waxee rek mooy mooy li ci mujj moom sa jàpp ci man sag cofeel sa bëgg dara desu ci àdduna sépp xam nañ ko ku la ku ne xam na cër bi nga jox ak jàpp gi kon nag ñu itam ñu ngi yeesaloo suñu digg yow di ñaan yàlla sàmm ko ndax Sëriñ Tuubaa daa wax naan ku mën a fas kóllëre mooy koo xam ne bu jàppee ma dama ni may fasante ni kóllëre mooy bu jàppee ma jàpp bu bàyyee ma jàpp ndax wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana suñ borom ko fonk ba bokk na ci ñi laaj boo liggéey kon nag képp koo fasanteel kóllëre gi leer rek war nga koo jàpp kon nag ñu ngi koy fetli li yow di sant bu baax nag di la gërëm cant guñ tibb ci suñ xol ndax sëñ Ibrahima daa wax naan nit kuy jëm kuy dem ci barab ku ne jëmmoon la fay seet bu ko fekkee toog fa bu ko fekku ne day gàddaay waaye liñ am ci yow ci cër lépp jox nga ñu ko ba jox ko lu kopp kon nag ñuy ñaan suñu borom sàmm kuréel gi te jàpp te te dëgëral ko te yàlla li seen yéene dëgëral seen taxawaay te mboolem li ngay sonn ci yoon wi di ko jëf ngir Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa rek a tax nga di ko jëf Sëñ Tuubaa ma tax ngay jëf nag. perte perte ma néewu ci ndax bu la nit ñi fay tam daa la fay boppam te ak payam rek ëpp solo kon ñu ngi lay bu baax di nuyu ñi nga ànd ak ñëpp ci bis bi ñu dugg ci bisu Sëriñ mu diggee ci lim ci déwén lim ci deele yàlla dimbali ñu kàttan bañ àgg ca jàmm te day cee tawfeex day cee ngërëmu Sëriñ Tuubaa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa